لتغرق أهلها إيه لقد جئت شيئا إمرا إمرا madun Thiam nee nañu imran li tax mu takkaraaru bi yoon nag nukkuran nukkuran a gën a garaaw imran mais ci baatin boo ko xoolee soo ko xoolee da ngeen ko coupé te te dafa jotul bàkkaar saa kiitu mooy ku ku gént te deful bàkkaar kii dafa jotul dénk kii gént ne waaye amul bàkkaar ma dun xam nga lu tax imran nu koron ëpp ko doole ñu ne kii gaal gu ñu bënn rek la gaal gu ñu bënn defaraat ko dina yomb kon imran nu koro ko ëpp doole parce que nu koro nit ku ñu rey la ba noppi nit ku ñu rey ba noppi neexatu la dabaatal kon nag nu kuran jëlee imran a ko ëpp doole defe naa ma dum déggatuma am ñu ne déedéet xam nga lu tax rey benn bakkan moo gën a yomb ak diigal gaal am déggula bu baax nukuran téere yi d'accord nañu ne moo di diggu alquran ci araf parce que nuun gi ci xaaj suuf bi la bokk raag bi ci xaaj ko bi la bokk ak keef gi mooy limite bi parce que alquran dafa am dig ci saar am dig ci aaya am dig ci araf am dig ci baat dafa xat waaye bu ci nekk am na fi ñuy digaaloo yow da ngaa bën na gaali jàmbur gi pour seen borom dee te ñu ngi ñuy defal teraanga yow kat li nga def ëpp nag mu ne ko alama qul innaka lan tastatia ma sabra lu mu ci teg laa tuwaxisni bi ma nawit wala turaqni min amri usra bul ma tiifal bul ma naqari bul ma noggatu laaj bu jëkk bi ne naa lay fàtte la nit ñi yaakaar yàlla nañ fi dajewaat ay yoon jërëgeen jëf si dahaaj Malick sunu doom sunu sëriñ sa téere maam bii dinaa ciy sow toujours ne la ma gën a loon ñu di ko may temps bu gën a yaatu biñ koy sédd ci xew-xewu Mustapha ndax fi mu fi jaareek moom ak ni mu jaareek moom xam ko da di koom te xew-xewi diine yi léegi na benn ciy bëgg a néew cër lool ndax toog dégg ñu woy bunt ba mu teer ñu firi ko ba mu teer muy am si muy ibnu maayib bi mu di leneen dafay jafeñ te haqiqatan Moustapha daal ci fii ci sunu jamono dégg piir ku ko bëgg a def di nga ñemeñ téere bii fa ngeen jonjoon balaa nga koo xam nga jóge ci di xool yeneen i téere ci ngay xame ne góor gi kaar li ñu wax ne wax na ne amul benn béyte bu mu way ci xilaat bi te du ci ndigal la yëkkatee xalim bëgg ci la ko tërale dëgg la ne naa am naa jaaxle Maodo xam nga lan la ñëppay jaam ñëppay jaamu yàlla ñëppay jaamu yàlla te ñëpp a jàngul te kenn du laaj miskin ñëppay jaamu yàlla te ñëpp a jàngul te kenn du laaj fajari tey bi may dem jàkk dafa am ku ne suma kër ma di ko fedd li booba ñu ngi bëgg salaat maa ngi jullee si ci jàkk jooju ma bëgg commencé piri nii muy naafila ma oo ko jàng na ma mu ngi ci biir day naafila ma ñuuxu ko oo ko oowaat ko jàng ne dafay naafila de musulmal ma ne ko xanaa dégluñ ma laa o mu ne ah kay ma ne ko la tere wax subhanallahi mu mel ni daf ne wax naa ko ma ne ko boo ko waxoon ne ma waxee yow nga dégg ko du doon borom si xalil ne na wa shafqa ala al imraati makruh wala fi ima rijal du julli ñu oola nga ne nii ci jigéen ña la borom xalil wax ne na yàqul julli gi waaye zib nañu ko mu ngi mel ni may julli ma dun romb ma laaj ma duut sàll ma liyaar ko nii liyaar boobu mu dem fekk fa duudu du yàq sama julli ndem duma lu bu fekkee dama lu nag mu ñëw ma liyaar ko sama julli yàqu na parce que moo seulement it liyaar la amoon julli yi dañu ëppante martaba jëmmi nit ñi ëppante martaba am na julli koo xam ne boo ca nekkee am na nit koo xam ne bu la ooyee boo uyuwul def nga musib waaw soo taxawalee julli ibu saaxo oon lu dara ci yow du sa sëriñ du sa baay du sa jëkkër da nga naan subhaanallahi soo kàbbaree julli sa papa ono mbaa sa jëkkër mbaa sa sëriñ jigéen ñi dégg leen ko ci ñu ngi wax xam-xam bu baax door a dugg ci xilaas kan su fekkee sa papa bi mu lay oo julli gi ngay julli jullik naafila la da nga koy wuyu mu wax ak yow ba mu pare su fekkee julli gi ngay julli julli farata la mu oola ci biir farata bi te mu wóor ko ne da ngay julli farata bul uyu bañal su la wóoree fekk bu la ooyee na fekk ngay julli farata te yëgul ne da ngay julli farata foog nga uyu tam si yaa ngi dégg su la ooyee fekk ngay naafi la su xamee da ngay julleeg bu xamul da ngay jullee ci yam wuyu ko bu la ooyee fekk ngay julli farata te mu réeri ne da ngay julli farata wuyu ko su la ooyee fekk ngay julli farata te mu óor ko ne da ngay julli farata nag bañal day jéem a buuxanteeg yàlla lànkal loolu laa mujjee waxanteeg xale bi léegi waaye Maodo ngi waxtaan ak yéen ci bi Moustapha amee juróom-ñetti fan ci dénd bii ñuy wax alimul mulki mu defe ko ci réew mu ñuy wax ardu ijaas ana baayam mu nga bar sàq nee nañu ñaari weer la ne bi am ci biiru ndeyam baayam dem barsàq boroom siira nag ci ñaari point rek lañ d'accord ca bu dul moom am nañ ci wuti ban ak ban mooy waa ji Mohammed la tudd yaayam Amina baayam Abdoulaye mais taarixi mawlud taarixi fu mu ko defee yëpp ñii wax nañu lii ñii wax lii lu dëgg duud waaye Maodo nag mosuñoo dañ bi ñu tette wax na ci xilaasa bi balaa maa commencé fii ngeen bëgg ma commencé ne bi nga xamee ne Moustapha am na ñaari weer ci biiru soxna su tedd sa ci la bàyyam génn àddina am déet mu nekk asa asaru kalami asaru kalami nag bu ko waxee am na daiful kalam bu am boobu ma xaqa anuhu xaqa fiilu mu daaf la xaqaqa la mooy fab diw gu diw gu niin bu ànd ak xa def ko ci bopp bu borom wat comme noonu ngi ngénte te ngénte sunna la te man wóor na ma ne ngénteel na bi togg ñu fa laax fekke uma ko de waaye daal xam naa ne daa laax daal ak beñe ñu yooyu daal amu ci kon gëstul bokk la ñu defaloon na bi mi nga bëgg a roy si laaj maa wax na la ko wa in turid xaqiqatan fa allaqi raasal walidi fasbaan wa xaqiqi واسمه مساعدا لدفئه او قتله او بعده يا ساي ولا تكون الاسم قبل الالق كساءة سرع لابن الباقي وتربخ نتنجد ورتبخ ويرت وبخ ترى وبخ وان تريد دم دم بغ يوم يدي جلي تي توب خنتوس مصطفى حقيقه tudd sa doom ginnaaw juróom-ñetti fanam fa awalu ma tafal fa ak fa alaqi jooju fa awalu ma tafal li nga war a jëkk a def alaqi watal boppi xale bi ndax kawar gi sobe na boo watee bopp bi ba noppi fas baax nga ren boo rendee ba noppi wa àq xi nga ne diw la tudd dégg ngeen parti bi wat ren bi tudd du dëgg wa ra ta waat reen di tuddi safaan daa ngi bëgg ñëw nag wa ismuhu turwa comme wat nga ba doppi mu waa iban mën naa ànd ak li topp iñi ca paaka ba duudu sàll la tudd bisimilaay duudu sàll aw xabloo wala nga wat ba noppi ne duudu sàll la tudd sa gërëm bi aw baadohu wala nga ren di ba noppi ne du du sal la tudd waaye wala takun isma qabla al alqi mukk tur bi doo am te wat amul am naa sa ñu ma cee xuus ndax dama am ay soxna yoo xam ne këfin la ñu laam baax xaw ma lébu lébu lébu war nañ ci seen i doom ñu ñëwee balaa watu moo naan papa wat ma xaw ma ñu di ko bëkkate xaw ma nag man nag yàlla nantu na ma ci laa am Maodo ma firi la way wi ngeen yeweeku nun nu des feggaay parce que sa maam daf ci dugal ñaari baat yu doy waam yu gëlëmal kuy ñi man xaqa anu bi shaab kañ yow ma saabihi jumla la ñu ne enchaîné wu na fa jiddu ku bar ban la ci maama mi mu ne sayid ba ta kuy kooku al mahmudu kuy kooku seen ëkk bi mahmud ak seen ikkam kenn waru koo dàkkantal ab yéefar te góor gi yéefar la lu tax moo du am ko ay ñaari baat am di tam si xam nga man sabbata ca dégg man asbata naka la man asbata al mawta man asbata al mawta ah xaafiye ba xaafiye ba xaafiye ba mooy way baat ba mujj baat ba mujj la def maw da def xaafiye moo tax si dañ naa li dina fab léeg-léeg benn baat def ko woy tout fa benn ciir def ko woy tout fa benn woy def ko benn jumle c'est-à-dire bi axmasay Moustapha haadin wudan basiran xayrul bariyati yi yëpp nii daal di ne xum saanum xum saanum rekk la kat xum saanum ala salami fi axmasay Moustapha nekk na ci ñaareel dëgguy Moustapha ya ne tekk ne xëetiñ mooy góor gu jub ga wasaran mooy kiy wéeru koo xam ne ku ci wéeru daa daanu xayrul bëri it itam moo gën ci mi def yi mu ne xum sanun ak xóot kon fu fu ak fu axmasay Moustapha xum sanun rek la diggi tànku ndigg la diggi tànku na nabi sallallahu alayhi wasallam dafa xaw a xóot nii dënni baaraam yi dinañ feeñ tëstan ya feeñ mais diggi tànk fa daawul feeñ mu fab rek loolu def ko benn bayt fi oxma say mustafa tasbiye gisin haadi wudan basran xayrul bariyati ne xumsan kenn dum man asbata almawta ibrun عالم العلماء فأبو الفؤولة هباب لدى السلمي من أثبت الموت لدى السلمي لك لا téere yi werante nabi bi muy laata génn àddina bàyyam bu baax bi forcé na ko ba mu tub parce que ku ko bëggoon la tuub googu nag dañ ko dàq mais góor gi abbas saxal ko abbas nag seedeem ci bàyyi na bi war nañ koo nangu ndax seede balaa ñu ko nangu nga maaseeg kooku balaa nga ko nangu ngeen amoon jaxasoo di toog balaa ñu ko nangu ngeen bari lu ngeen di waxtaan te loolu yëpp góor gi def na ko man ka nga xam ne aspata saxal na lay ci wóoru wóor moo tuddeewu góor gi ala salami ñu ne kan la mu ne ibron xamuñu ko mu ne ay lamul ulama xamuñu ko fërul fu ólati xamuñu ko mu ne yéen a daf kon mën a abbas boobu du noonu wax nañu ne bi Moustapha bi bi bi góor gi Seybat Alhamdi tolloo diggante wala Abi Talib dafa mel ni ku xë- ku xam xëqii ne ana Moustapha ku ko bëggoon loo bokkul ci diina jooy ku ko bëggoon loo ñu ne oo leen oo leen ko papa ma ngi koy oo Aboo Jehlin ne na boobu ñu ngi ko wër asxamatu boo jeelin tufaylu xëylu bun abi muyatu bun xalafin xaawsul bu magi yéefar yooyu maaseeg moom ñu ngi ko taxaw mu toll ci sukuraat ñu di ko siis nag pour mu génnaale pour mu génnaale li ñu bokkoon nekk société bi muy ñuy bañ mu dugg ci lislaam te ne ben ko taxaw naan ko papa waxal benn yoon laay laay la laa ma dëgg ci man laa ramm layoo la ak yàlla mu naan ko doom bañ ko la xas ëllëg rek a tax xam nga luy xas bi dañ naan la sa baay dafa tiit li mu toll sukuraat daw ci li mu nekkoon dugg ci jeneen diine xas woowu rek laa lay bañ a doon waaye billahi li ngay nekkee dëgg mais Abu Jahl saay saay bi nee na bi ñu ooyee ne bi te diggante góor gi ak diggi lal bi place xëj fi dama topp seere place bi parce que xam ne bu ne bi ñëwee toog foofu bu ko góor gi xoolee bëti yërmandeem rek dina tuub te loolu laa doon bañ kii moo saay saay ku la laajatee man a ana kana tudd anhu bi Moustapha yow ma saabii ci juróom-ñaari fanam ya neel fa juddu bismillah yi alaaji gay am nga gan al mahmoud ke di ko ñu sant jikko yu rafet solu ikam yi kay borom xel mu rafet ndax moo ji du mën a doon mukk cantu jëf ndax dugul ci lislaam ikam bi mukk du doon ikkamatu bi yàlla wax tuuti man tasha man insha kon da nga koy abal tur yi istixaaral majaas la koy defal bul woy góor gi day yéwee ko tama bëgg mu ñaan ورنة رن عينا ورن إبليس رنة بلا نخي غن ورنة رن إبليس بلا نخي غن إبليس رن رنة ما دو مام ويام فوك جار مو باخ بو جاري سي ديغ بي باخ بو تخوتي مو باخ فو جاري مو باخ رek ngir nafetak nasu benn yoon iblis ñetti yoon lu juux nga xam ne mooy saay-saay bu mus lu ko lu ko mus a tax a onk yiw la lu ko tax a kontaan musiba la ina mawlidihi bankal wa ini ibaatihi ibaati la nan laafe ko ndax lu ko mooy day doon ñaar te atfun bi la waawi la waaw وأكثى وأكثرنا أيضا إنما نزلت أم الكتاب على خير الورى الحكمي هكمي هكمي يبقى جدوني تذكري بون كرب النبي جدو لو مسجوي jooyi àddina tukki naa nit ñi dañ dem àjjana jooyaatul nag ba keroog bañ ko ta takkale garaat bi yaay ngeen ji mbindeef mu jooyaat nan la ma doon dëngal tuuru naay jooyaatul nag ba keroog lu dul keroog bañ wàccee faatihaatul kitaab lu ko tax a jooy foofu Maodo mooy nabi Ibrahima du suq 33 ans la dund mi ne la ayima ni nga gisee imaamu Saafi nag xam nga yàlla dafa yàgg def ñeent ñeent Ababacar Omar Ousmane Ali ñooy xulafaaw yi du noonu ñi nga xam ne nag ñooy ayima yi diine yi mooy Abu Hanifa Saafi yu Ibnu Malik ayima suuf yank yi nag Ibrahima du suq yu moom la Mohamadou Rafai Abdou Khadir Jeylani ak du suq 33 ans la dund ni yéeme te passé ne sidratu muntaha gi Jibril yemoon keroog waaw Jibril ba muy gunge nabi ba agsi ci sidratil muntaha dafa taxaw nabi na ko doxal afi misli haza yatruku lxalilu xalilahu place bu dafee yaram nii nee na terrain ba suuf suñu mulañ la malaaka yaa ngi ci luuf nit njéeréer yu tawte ba nopp sa bal yaa ngi jib ko ak suuf sidratu muntaha nekk ci dëkk bii jaayu bu xob yi laalante moo dàq piano bu rotalee doom rek palaat bu pare la ànd ak nguróog li ci ànd wala jeeg bu toilette yàlla rëbb na fa nabi mënu koo jàpp jàpp ko neexu ko dinaa di wax gaa yi ne yonent yàlla Muhammad indil nañu sari ci bu rëy indil nañu sari ci bu rëy laylatul isra bi ma ne gaa yi bàyyi leen nabi indil nañu sari ci bu rëy wax leen bopp yóbbal bi mu yóbbu ko indi sari ci bu rëy bi ban yóbbu la nabi yóbbu ba indi sarité bu toll ni xalaatu salawaatu xam si yóbbal bi mu yóbbu daal ki teggi ba ki teggi bagage ba xool ko te mooy yàlla ne na maasaaxal ba sa oo ma tax kon teggin rek la fa yóbbu teggin la fa yóbbu moo tax ñu jox ko sarité bu rëy boobu ba nga xamee ne sunu borom déy naag moom la muy déy ak moom audience ba dañ ci yokk trente secondes lañ ci yokk yoo xam ne mu ngi tolloog benn minute fii di tolloog ñaari junne at ak téeméer fukk ak benn ci àddina moom nañ ko yokkal ci audience bi pour mu visiter ji àjjana bis na bi visiter naan àjjana gis na seen kër yéen ñëpp ak sunu kër nee na nag bi may ànd ak Jibril mu nekk sama mutawif ñiy seet àjjana ak mbedd yi gis naa awani bu ma àgg wala rond-point bu ma àgg foog ma korose faak ñeenti rigol yuy daw di def xëp xëp xëp xëp xëp xëp xëp xëp xëp xëp xaama nag fu rigol yi jëm ba mu yàgg ma ne muy Jibril alayhi salaatu wasalaam rigol yi fu ñu jëm ak fu ñu jóge mu ne ko fu ñu jëm de xam naa ko ay fi ñu jóge xaw ma ko yow mi nga xam ne loo ñaan yàlla mu defal la ko waaye laaj ko ndax nu xamaale ko ne bi ne minute laa am am na dara ci kanam am ne ko gëmmal mu gëmm mu ne ko xoolal mu xool mu cëppéer ko ci place ba muy xubba boo xam ne ku boole woon asmaani juróom-ñaar ak arasa kursi yu bayaal bu toll noonu dayu nii mu ngi fa fekk benn machine machine baa ngi wax tal employé yi leer lañu bu bis leer la ñu sol waaye mu ngi def kër kër kër kër kër kër kër ci biir ni machine bu ñu tàlloo gaa yi daw di do di rombante rek nee na nag bunt bi xomba ngi ci moo xam ne nit ñeeg jinne yi buñ daje woon di ko yëngal du yëngu ma taxaw jibril na ma xoolal bu baax ne ma xool gis ca benn koñ ba benn tiwo bu ñu roof lem di ci génn benn koñ ba ñu roof ca tiwo soow di ci génn benn ba sàngara sudul mandé te araamal di ci génn benn ba ndox mu amul wala njaa wallax njaam te du fat kenn di ci génn te galaas yi ndekete téere yi li tax ñuy bañ boo bindee bisimillahi alsaxer gi bu mu gëmm parce que place tiwolo liif laam ra ab lonk miim liif gaaj googu miim gi bu mu gëmm place tiwolo liif laam ra ab lonk yaa mimara googu bu mu gëmm place tiwolo mimara bisimi ga it place tiwolo muy ñeenti tiwo léegi jib li xam fi affaire bi jóge gis nga fi muy génne mu ne waaw mu ne ko dugal mu ne ko yoruma caabi ji mu ne ko mu ngeeg yow mu ne ko luy caabi ji mu ne ko bismillahi rahmani rahim wa akasaarana ay dan inama nasarat umul kitab ñeenti tur yooyu ku ko mën man naan dal li sama ñeenti déeg yii te ku ci naan dem àjjana keroog iblis jooy na moo da nga ñaanal nu yàlla te ñu ngay ñaan sa papa mu gudd fan waaw si na nga ñaan rek parce que Alaaji Maalik nga tudd